jërëjëf mbokki internet yi safoo Dakar Buzz ñu ngi fi nga xam ne moo di Grand Yoff ci passerelle bi nga xam te ne ñoo nekk fii ci euh, suufu pont bi ñu gis démb ñu nemmee ko fi ay jàppante yoo xam ni dafa am diggante ndaw ñi ak force de l'ordre yi ñi nga xam te ñoom ñooy jaay ci suufu pont bi parce que mën nga ñu dikkal tey ci li woon démb fii ci Patte d'Oie tur la. waaw man la Bamba di nekk Patte di daan sama doole di di ànd ak sama gars yi fi nekk yëpp. ñi nga xam ne ñëpp waaw ñi nga xam ne ñëpp dañoo bàyyi seen bàyyi seen responsable bàyyi seen waajur bàyyi seen yaay bàyyi seen papa ñëw fii daan soon doole léegi maire bi nga xam ne mooy ma jëpp ñëw jekki-jekki ñëw ne da ngeen fiy jóge te andi lu ñu loo xamante ni moom mooy waral ne dañ fiy jóge waaw te nga xam ne fii gars yi yëpp seen yaakaar fi la nekk seen lépp fi la nekk waaw bàyyi seen lépp ñëw fii moom mu ñëw andi ay nerveem ñëw mu segaase bagage gaa yëpp yee bi mu segaase bi mu ñëwee andi nerve bi gaa yi léegi daal di parce que ñoom dañoo bëggoon a jël bagage yi gaa yi di ko yóbbu léegi gaa yi ne du ci dal foofu la xeex bi tàmbalee waaw ñu xeex xeex bu metti moom mu ñëw fi ah. ñoom sax suñu andi ñu fooy. ñoom ñaata at a ngi nii cent ngi nii ñu ngi ñu indil fooy deux cent ñu ngi ñu indil ay fooy andil nañu fi ay fooy boo xam ne dédommagé la andil nañ ñu ko fi andil ñu yeneen fooy yoo xam ne kenn xamul fooy lan la ba démb dem ba barki démb ba léegi ñu ngi tàmbali naan ay da ngeen fiy jóge fii nangam nangam ñun suñ joxuñu di dale joxuñu dara dañuy jaay doole rek parce que parce que lenn rek lañu bañ mooy li leen nguur gu bees bi waaw li leen nguur gi li leen li leen nguur gi def moo leen metti waaw Diomaye fay gañ dóor yi mu leen door fii moo leen metti moo tax ñu mujj ko soppi amel ma ñu def ko massa amel ay te loolu moo baaxut loolu moo dul yoon nguur yàlla moo koy joxe nguur du nit moo bu ko doon nit moo jox boppam kon Diomaye Faye du toog ci réew mi nguur yàlla moo ko jox boppam waaw nañ bàyyi li ñuy def te bàyyi ndaw ñu liggéey ndaw ñu ñoo doon xeex démb pour senegal développé wu mais mënuñoo xeex démb nag tey ñu mujj tamit di ñu yàqal wax dëgg yàlla ñun amuñu leen lu dul lii bu ñu amoon leen dañ koy def bu doon place yee dañ dañuy am place pour jël fee dañ koy dem jël ah mais place moo fi amut boo jël te nit ki boo koy jóge yëkkati fenn da nga koy dédamassé wala nga jox ko loo xamante ni mais da koy xëy di ko toogloo ne ko doo liggéey loolu fan la am ci réew tubaab bi sax bala bala ñu lay yëkkati dañ lay jox loo xamante ni yow diñ ko mën a dund cinq an doo sonal kenn mais lan mooy loolu ñëw yëkkati nit ki joxoo ko dara luy wane naan ko yow doo liggéey doo fi lal doo liggéey loolu mooy lan te sénégalais liggéey la fi nguur gu bees gi woote Diomaye liggéey la fi woote ak Ousmane Sonko lañ leen wax nañ def loolu moo ëpp sens li ñuy def nii amul benn sens ma jëm mii leer na ko ne leer na ko ne tey nii Ousmane Sonko ci nguuram ci la tegoo moom moo moo tax ñu wooteel ko mais bu du woon moom la tey du fi toog ba yàqal kenn man démb wax naa ko nee naa ko yow élection mooy moo la fi dese parce que yow leer na élection mairie bu ñëwee doo fi toogaat loolu moom bu yeboo nga def ko sa bopp bi bu baax baax parce que sénégalais dañoo xaw a soxor dañu soxor bëgguñu koy am ma jóob xombal la dëkk ñun xam nañ ko bu baax a baax xombal la dëkk yaayam jaaykatu caaf la woon ñun xam nañ ko yorutoon dara ndakaaru la ñëw di xuslu di ambila ba am li mu am tey jii ambilaa maan la woon ñëw di ambila waaw ambilaa maan la woon ma jóob ambila maan la woon di ambilaa tey ba am ñëw tey mu yàlla teg ko fii mu bëgg a jaxase ambulance quelle quelle raison ban ban senegal lañ ne léegi ban senegal lañ ne luñ nar daal mooy ñu ñu ngi nii lal toog nañ dañuy liggéey far force fara force doole mbaam dañuy liggéey mënuñoo toog duñ liggéey liggéey ci la ñu suñ bàyyi tàgget ci lañu ñu suñ yaay tàgget waaw ci la ñuy dund ci la ñuy teddal suñuy waajur yi xoolal tabaski bii di ñëw ah ñun ñii ñëpp fii ku fi toog rek am nga responsable war ngaa def leen ak leen bàyyi ba tabaski jub suñuy def yi lan mooy lii ah nañ waxante dëgg mais réew mi quel pays lañ nekk ban Sénégal lañ ne ñu fekk nit jël yàq réew muy tere liggéey fan la am si àdduna bi yow tubaab yi boo nee sarax ci ñoom sax dañ lay gaaw accompagner pour nga ñëw pour ñu jël leen pour nga liggéey ah xoolal démb li fi xew démb. mu mel ne sabar gu tas réew mi jaxas fii jaxasoo fii yëpp dafa jaxasoo woon ah ak seen mairie bi nër bi nañ bàyyi loolu nër bi fi andi ñu andi ay paaka loolu du yoon mënoo yore mënoo yore kii yor ay bandi loolu mënul nekk c'est impossible ay bandi nan ngeen leen jëlee di leen andi fii pour ñu xeex ak population bi waaw lii nag Diomaye na ci jot ak Ousmane songo nañ ci jot parce que ñun ñun sëni ñoom ñun moom lañ doon xeexal xeexaluñ keneen ku dul woon usmaan Sonko ak Diomaye pour ñu toog fi tey pour dimbali ndaw ñi kon ndaw ñooñu bu ñu leen dimbalee tey ba nekk ci axe di liggéey ah kon kenn warul jóge fële duñu ko yàqal quoi suñu teraanga fii la ne ma jóob bàyyi ma jóob sax mënu mënuñoo teree am ma jóob ñun xam nañ ko xam nañ ko bu baax ñun xombal lañ dëkk xam nañ ma jóob yaayam jënd naa ci moom caaf ba tay waaw xam nañ ko bu baax a baax kon bu mu ñëw fii duñu fontoo waaw na bàyyi ambulant yi ñu liggéey ah bu liggéey réew mi du dox ambulance bu ñu liggéey réew mi dox réew mi na bàyyi ñëpp ñu liggéey kuy fortaata for li nga for ku ci yàlla mu jox dara nga jël loolu mooy am réew loolu mooy développé am réew mais ñëw fekk ni taxaw nga jël ko yàqas ay bagage am yóbbu waaw loolu lan la ay ma jóob mi daal vraiment man bett naa luñ ko doon falee fii quoi wallaahi. waaw ñu ngi delloo ziar bu wér kii Adi Diop lañ koy wax non waaw xam rek problème bi benn la ñun ñëpp ñoo bokk benn problème bi xam nga. góor yàlla du ñëw bàyyi njaboot bàyyi lépp xam nga ñëw pour liggéey pour daan doole suturloo xam nga nga ñëw di ko yàqal xam nga li nga yaakaar pour dund ku la ko yàqal ku ne parce que moo la rey rek loolay problème bi ñun ñun ñëpp ñoo bokk benn problème bi dañ fi nekk di liggéey xam nga comme ñoom dimbaliwuñu ci li ñuy liggéey joxuñu dara defuñu dara nañ ñu bàyyi ñu liggéey mais da ngay xoslu dajale say 100 francs 200 ba mat am 100000 nga def ko benn table wala benn tabouret teg xam nga pour liggéey yaakal ci sutura yow ak say njaboot ñu ñëw saccagé ko ku la dimbalu na la bàyyi wala boog comme dimbalu ñu nañu bàyyi ngir yàlla ñu liggéey dañu bàyyi ñu liggéey parce que ñun xamuñ lu ñu liggéey lu dul liggéey yaruñu ci leneen lu muy liggéey te liggéey lañ xam te xam nga ndaw bu nekk bu waree liggéey te liggéeyul dina def leneen loo xam ne xamu ko kon ñu bàyyi ñu liggéey man loolu rek laa am li may wax. fii laa doon lal waaw waa gisoo gis nga te fi mu ne am na ñu sama ginnaaw am na ñoo xam ne sama ginnaaw la ñu yaakaar. xam nga maa leen di defal lépp samay jabar ak samay njaboot samay yaay xam nga sama lépp muy noonu léegi mooy li ma la wax rek xam nga bu dee ci man lañ yaakaar dund ñu tere ma dund googu xam nga ki lay tere dund parce que moo la rey rek comme ni ko sama grand bi waxee léegi xam nga boo xoolee yow da ngay dajale ab tuuti teg ko fi war ko suqali mu jóg nga dimbali ci say famille dimbali ci keneen ñu ñëw sagaase ko ana looy dese nga taxawaat zéro léegi yow boo jigee ana lan moo nekk sa xel xam moo tax bétis bépp bétis bu nekk ci réew mi genre yu mel nii ñoo koy def parce que nag yow da ngay dajale say mbir xam nga teg ko mooy loolu war see dund war see dundal say njaboot war see dimbale ñëpp xam nga sa famille yëpp mais dañuy dañuy jékki-jékki ñoo un jour ko lépp tas lépp ti te maanaam dara du xew de. loolu yow yaay ñàkk carrément léegi bu ko defee ñu bëgg a wax ne bëgg nañ kaaraange réew mi an xale bu ndaw bu am dooleem am léppam nga ñëw saccagé lim yoroon. amul leen benn yaakaar lu mooy leneen kon kooku dina def lu mu war du def mu na ñu bàyyi ñu liggéey ngir yàlla ñun liggéey lañu xam mu ngoog loolu la am lu ñuy wax ah. état bu Sénégal li ma koy wax rek mooy ñun xale yi ñun jeunes yi comme moom jeune la comme ñun dëgg la moo ñu mag mais jeune la comme ñun te ñun jeunes yi ñoo ko jàppale moom toog di jàppale jeunes yi. parce que lii lañ bëggoon pour état bi pour affaire yi soppeeku parce que lu mel ni yaa ngi koy dund mais boo gisee ñu xeex pour soppe état bi indi fi jeune comme moom xam na lii dund ci dëkk bi ndax yàgg na nekk jeune jeune la te yàgg na fii te gis na li ñuy dund. non mais maire bi dafa neexuloo waxat parce que moom banditisme lay jaay quoi so loolu la parce que baat boo wax ak moom day jaane maa leen fi gën a dëkk grand booy grand fi la xam nga mais loolu amul njëriñ gis nga boo nekkee say population ñu votel la nga falu a nga war a neexalante ak ñoom defak ñoom ci njëkk ak teraanga mais banditisme maire en tant que kilifa ñu ne maire la. ngay ba jaay banditisme amul njëriñ gisa démb bi mu ñëwee fii ay ay nervi la fi indi yónnee ay paaka ay leb di jamarloo ak ñun gisa bi mu ñëwee xam lan la wax sànni leen xeer lool kilifa dina ko wax loolu ndax loolu kilifa dina ko wax moom maire bi moom ma jóg ci boppam ndax loolu kilifa war na ko wax en tant koo xam ne yow yaa war a dalal nit yaa war a négocier nga ñëw di indi yi ka ne yam xam-xamut moo tax ma ne le banditisme lay jaay mais amul njëriñ na bàyyi jeunes yi parce que moom ci boppam moom mii di wax ni jeunes yi ñoo ko grâce bi mu bokkee bi mbokkee bokkee yeewi askan wi Sonko tax mu falu tey kon na dimbali jeunes yi ko faloon ñun narul lu may liggéey force mënul ñàkk liggéey mënul ñàkk parce que ci la ñuy dund ah yow boo xamee am xamoo lu muy liggéey boo liggéeyul nooy def te liggéey bi ngay def ci ngay dund nooy def looy def ñu xamuñ leneen de liggéey lañ xam kon dañuy liggéey moom ak nu mën a méttee dañuy liggéey parce que ki la bëgg a teree liggéey mooy la mooy mooy ki bëgg a jël sa bakkan parce que liggéey bi ci ngay dund mu bëgg la ko tere sa bakkan la bëgg a jël joxel sa bakkan rek mu jeex mu ngi noonu loolu daal lañ am pour def man ñun moom faaw mënuñoo ñaaka liggéey ñun sax bañuñu ku ne li jugee leen fii waaye jël leen li waaye jugee leen fi rek rek rek rek rek loolu ana koo xam loolu ban Sénégal la ban loi wala ban article moo diggee loolu jugee leen fii te bul jàpp ci lii amul fenn fu ñuy yóbbu bu nekkoon am na fu ñuy yóbbu ñun bañuñu loolu parce que liggéey lañ xam état côté bu ñu toll rek man ñun mën nañu liggéey loolu loolu mooy affaire mais jógee leen fii jógee leen fii jógee leen fii te amul leen bu leen dem fii téye leen ci lii non ku la waxat bàyyi lii jàppal ci lii la la wax ci yoon ah ñu nag dañuy bëgg a laajte ban Sénégal la ñu amee ah dañoo dañoo nekk ci réew moo xam ne ñi tere liggéey wala du nguur gi fi nekk liggéey lañ santaane toog muy dox amatul léegi ki tere toog muy dox yow nga bëgg a kii liggéey nga bëgg koo tere ana lu muy def moom ko ñun liggéey lañ xam ne ñu bàyyi ñu liggéey salaamaaleykum wa non sant yàlla rek di ko wax mu bàyyi ñu liggéey rek man amal beneen kàddu bu dul boobu nañu bàyyi ñu liggéey parce que ñun liggéey li ñu xam c'est ça. ñu ngi lay delloo ziar Saliou Diop. waaw jaaxle nañu torop de wax dëgg yàlla ndeg moo Diop moom affaire moom xaw nañoo bett tuuti. moo Diop ñun ñun man moom grand boy grand fi la moo Diop ak sama mag yi ñoo doon ànd. ma Diop waaw ma Diop ak sama mag ñoo doon ànd. waaw comme la xam nga rek ñun. lu ñu bañ mooy lu gars yi di def ñu koy def xam ndaw ñun am nañ doole am nañ fit bi mën nañoo def li gars yi di def bàyyi ba ngoon nga jël sa paaka def li gars xam nga ndaw bu bu si nekk ah, bañ loolu yëpp kon yow yaa ko war a jàppale ñun liggéey lan lañ xam ñun liggéey lan lañ xam te liggéey lañ bëgg kon ndaw fu mu nekk di liggéey da war a encouragé ndeg lu nekk ndaw ñu dugg si ñoom baaxoon nañ daw ñu liggéey ndaw ñuy jënd cek-cek bi cek-cek bi di dox gis agressé yi dafa dafa wàññeeku si dëkk bi gars yi di leen commencé di leen jàpp di leen def lu ne gars yi jaayaat seen moto yi gis nga dëkk bi nu mel kon tey jii ndaw yi nekkaat yi nii di foraatu di daan seen doole nga yëkkati leen kon lu am si si réew mi ñoom ñoo ko waral xam ndaw bu xëy nangoo ñëw taxaw fi naaj bi nu mu tàngee nga yor sa bagage di jaay am na loo bëgg waaw ah. ah. waaw non territoire bi boo xoolee ñun ñun territoire bi ñun duñ ci laal territoire boo seetee boo ñëwee doo fi fekk benn góor yàlla pë xaj na ñi koy lal sax dëkkuñ fi territoire bi pël yi fiy lal sax dëkkuñ fi te ñun ñëpp dañoo yaata xam mooy dëkk lu ñuy wax senegal Sénégal dafa yaatu gis nga tey ñun pël yeeg ñun ñëpp pël yi ñun ñëpp ñoo bokk nekk benn famille nekk di liggéeyandoo ak ñoom kon xam nga loolu ndaw ndaw bu bëggul liggéey doo ko def loolu la mënoon na indi leneen ñu ne ñii duñ fi laaj waaye jàmm ju Sénégal xam moo tax ñu bàyyi ñun ñëpp yaata liggéey kon ndaw bu nekkee di liggéey yéen a leen war a encouragé leen di teg fitna man daal comme sama mag la lu ma koy ñaan mu bàyyi ndaw ñu ñu liggéey xam nga rek ñëpp lii jaamu yàlla liggéey jaamu yàlla ndaw bu liggéeyu def lu mu warul def loolu laa koy ñaan man en tant mag ñun bañuñ loolu bañuñ loolu ñun suñu fu ñu yóbbu ñu liggéey ñun lu ñu lu ñu bañ mooy ñàkk a liggéey rek ñun ñun xeexuñ xuloowuñ ndek ñun bu ñu xeexee wala ñu xuloo ñun moom dina gaañ ay rakam wala ñun ñun ñu gaañ suñuy mag wala ñu gaañ suñuy papa wala ñu gaañ suñuy rak ndek fii koo gis rat ay mbokk la nga xam nga ñàkk xam ay mbokk la ndek ñoom bi ñu gars yi ñu indi woon démb ñoo am na si ñoo xam ne ñun ay magarake am na ñoo xam ne ay doomu nijaay am bajan te démb lu fi am boo ko fekkoon sax sa yaram day daw te boo gaañu sa rakk rek da ngay gaañ sa mag man daal li ma koy ñaan mooy mu jàppale baay ndaw ñu ñu liggéey te lii yàggul boo xootee xoola ki fi jaaroon ku nekk jaar na fi Senghor jaar na fi Abdou Diouf jaar na fi Abdoulaye Wade jaar na fi jàll te ñoom ñëpp am nañ nettali boo xam ne dafa rafet moom waru jaar affaire bi di tase ci ma man loolu laa koy ñaan quoi waaw président de la République dama koy ñaan mu jàppale ndaw ñi rek comme comme li ma la waxoon rek ndaw mu ndaw moo yor réew mag ñi dañuy dem ndaw ñi ñoo fiy des tey boo jàppee sa sa sa doomi réew ndaw ñi nga nga fagaagal la ëllëg lu lu am yaa ko waral tey jii da ngay gis ndaw boo xam ne day liggéey ba am 5 millions waroon na fee a toog ku si réew am fi 5 millions waroon nga fee toog ba mën mën fi am ay milliards waaye tey boo liggéey ba am 5 millions nga toog sa xel dalatul ñu lay sona da ngay a def loo xam ne ne mu léegi nag li nga doon daw noonu da ngay mujj gis xoola ndaw ñi ñaata ñoo dee ci géej gi te xoolal liggéey nga ba am 5 millions buñ la yaataloon mën nga dem ba am dimbali ñeneen ak ñeneen waaye léegi benn ndaw mënu fi am 3 millions yu mat boo amee 1 million dem nga léegi am 1 million dem sa yaa sa waajur yaakaar nga dugg ci géej gi deef loolu erreur la te buñ la bàyyi woon nga liggéey fii da ngay mën a continuer liggéey ngeen jàppale wala nga ñëw ñu luyee la cantine ba pare nga ñëw ñu tegal la loo xam ne da ko fi tëj dem sa yoon loolu tamit rafetul en tant que maire maire de Grand Yoff man sama mag la sama lépp la man loolu laa koy ñaan mu bàyyi ndaw ñu ñu liggéey ngir yàlla xam nga rek moom moom comme ku ku nekk si lu ko moo war a taxaw na la nii kon boo ñëwee fekk ñooñu di liggéey da nga la war a jàppale ñu liggéey man daa sama xalaat bu gàtt loolu laa koy ñaan quoi waaw jërëjëf tonton merci.